coronavirus bi nekkul ci système africain yi lu tax nekkul du ñuy gaañ ñun ñun rey ñu lu tax euh, ñu muy rey féetewul Afrique doo xam ngeen ñun suñu jiin dafa strong dafa am doole donc am na benn propagande bi dem ci suuf africain yi nañ ci bàyyi xel ñu def ci très attention soo comme que xam nañu ne coronavirus bi ñun bokkul suñu système suñu système xamu ko da kaa mais ñun africain ak marron yu marron ñun ñun brown brown même fii Amérique sax brownness duñu duñu sonal parce que suñu système da kaa rejet however dafa am vaccin am na vaccin bi ñu trouvé vaccin boobu nag ñu ngi ko jël yëpp jubal ko Afrique pour tester foofu du tester de pour nag inject leen li nga xamante ne il faut mu am side effect ci côté africain yi nañ ci bàyyi xel te muus il faut ñu vigilant parce que lii déjà am ngi ñuy won ñun suñu jiin nu mu strongé so nag il faut ñu bàyyi ci xel ñu vigilant képp ku ñëw pour vacciner bëggoo leen ay vaccin naan leen seen tulkone ngeen dem naan ci reen yi ku góog ko tulkone yi ngeen toog fonde seen bopp yéen a ngi understand soo vaccin yi génn na mais bu kenn di buroxloo di daw ne nañu vacciner parce que déjà suñu système suñu jiin dakaa rejeté ñoo mun coronavirus mais ñoom munuñu ko donc soo xoolee nu muy demee mu ngi leen di jeexal mais ñun Afrique suñu maam yi dañoo liggéey ñoo ñu défendre donc kon loolu am na ci ñun mu ngi suñu jiin ñun tam nañ jël loolu ñu protéger wu. vaccin yaa ngi ñëw na nit ñaa coow nag vaccin yi fii fa mais testé ñu ko fenn de ñu ngi jublu Afrique soo xamal leen seen entourage ak fu nit mun a def audio xamal seen nit ñi. ngaa yaa ngi ñëw foofu nag foofu la ñuy testé yépp nag parce que dañoo dëgër ñun donc bu ñu testé vaccin bi mu def saa defee ci ñun rek réussir nañu parce que déjà xam naa ne lii affaire politique ñële ñoo ko sànni ñële te bul gis boo leen seetloo affaire bi mu demee bërëm bati sew bu leen ko joxee ñoom tamit fexe nañu ba delloo ko ñeneen yi ñu leen ko jox da ngeen il faut ngeen ñu xool ci journal yi nuus yi daw man temps yi China moom dafa mel ni ko Chinese la jeune nuus yi même bu ma comprendre la ñuy wax mais damay jël sama xel common sense laa jël di xool di bëgg comprendre kii lan lay bugg a wax pour deg mu leen a informer ñun dañoo dëgër mais vaccin buñ ci dugg nañu toog dallu ñii jël suñu tulkono di naan suñu reen yi toog ñun suñu système daf ko rejeté carrément loolu nag moo jaaxal àddina ki te lu leen jaaxal nag suñu côté dinañu fexe tout pour xool nan la ñuy def ba ñun ñu bokk ci même catégorie ak ñoom donc loolu lu ñu ciy sauvé mooy léegi ñun africain ñun bran bran dañuy il faut ñu smart fii sa Amérique bëgguñu sa vaccin ñun sa bran bran kenn bëggul dem jël vaccin bëgguñu donc yéen mi nekk Afrique yàkkamti ngeen gis tubaab bu xonk ñëw tax ada yor ay pikiram ngeen dem tallal seen loxo ne acce yow yaa blende dem leen nag kuñ ci ñuuj ku ne du léegi ngay gis saay defee bi mais loolu dañ koy am na moment yi muy déclenché bu déclenché tam yaa ci dugg ko war a arrêté man bu may tukki Afrique du ma jël benn vaccin parce que gaw ma ko dëkk di jël vaccin man fa laa jógee africain la sama jiin dañ ko préparé depuis samay maam njëkk yi donc feebar bi ñun suñu jën suñu système Dakar rejeté moo ko mën moo ko rejeté nu mu fa dugg dugg day génn xaju fa donc loolu kese ndam la ci suñu côté léegi nañu porté suñu bopp gars yi bu ñëwee ak seen piqûre bu kenn accepté docteur boo xam sa mu ñëw da lay na dama rax sa piqûre leen ñi ngi ñëwaa foofu lañ koy testé te test bi su defee saa yi def ci ñun ñoo ñoom réussi nañ actuellement ñun ñoo gagné ñëpp Afrique la ñoo gis ngeen question yi ñu ngi koy def ci journal yi lan moo tax sonaloon africain yi yeewu leen bàyyi leen xel dugg si nañ ne adool ñoo nañu bu yàgg ñu ngi ci biir Afrique ku dégg làkk woor sa nit ñi nga wax leen am na yenn yi nag doo dugg seen làkk di expliquer pour ñu xam ne ñun ñu ngi signalante suñu biir il faut ñu làkkale ñun tam fu ñu xamee ngeen mën a comprendre yéen a ngi soo lii boo leen ko déggee ngeen dem ci suuf signalante ci biir bu kenn jël vaccin bu leen jël vaccin ku ñu tàllal pikiir nga bañ ok mun ma ko wax nag si seen làkk fii nag dégg naa ko te mu naa ko làkk ci français ak mais bëgg rek bu jox leen ay clé il faut ñu yeewu gars yi nag dugg si nañu ak seen i piqué seen vaccin ñëw na pour test ko Afrique nag tey leen maire yi nga xamante ne nañu gis lu xonk rek ñu taxaw def seen rambu gudd tey leen maire yi ci boppam ñu comprendre yi jigéen yàkkamti ngeen gis ku yor sa piqué ne cuuj da ngeen di rang di boot seen doom yi please du bu njëkk ba bu ba yeewoo leen xamoo leen mais léegi comprendre ngeen ndax seen doom yi tukki nañ ñi xam nañ nu mu demee bàyyi leen foo leen gis ku xonk taxaw ngeen rang ram bu gudd élastique mel na ñuy jox ay dund te di leen di injecté lu bon bu ëllëgee ngeen di dow ci hôpital ñi ñuy suul ñi kii ah léegi il est temps ñun ñoo yeewu na ñoo xam ñoo war a porté suñu bopp feebar bi jaaxal na nit ñi trop la moo tax nekk di détruire africain yi parce que ñun suñu jiin moo ko mën léegi comme ci ñoom la féetee nañu fexe mu des ci ñoom te bañ bu ñu accepté vaccin ba ñu accepté dara naan lañ ci tul ko yi ci reen yi ba mu dëgër comme ni ñu yàgg def léegi dañu dellu suñu maam ya nañu jël nañu fondeloo ñu def ñu blindé ñu taxaw xaar leen fu ne ñun jaaxal na leen trop trop loolu nag mooy dox nag ci scientifique yi nag loolu la ñuy poser question lan moo tax détruire Afrique ok so coronavirus suñu xamu ko dakaa rejeté ñoom kese la xam daa mel ni Ebola Ebola ñu rey mais du nag seen bos ñëw na ñoom nag bii ñoom lay détruire mais du ñun soo e, affaire yi affaire de defante la borom boti sew ñu leen ko jox ñoom dem nañ delloo ko ñooñu tamit ñu dem toog ñu po ñoom ñooñu dañoo liggéey seen dëkk désinfecté ko génnee ay technique ba ay robot yi servi dañoo aay defal seen dëkk ba mu baax dañoo xeex nag xeex nañ lii ba mun ko léegi niñ ko munee noonu gars yi nag fu leen jaaxal mooy Afrique ñoom du borom ba sew ñoo koy indi Afrique ñu mais ñu bone ñu ngi ñëw dugg si nañu ñoo xam ne dugg si nañu Afrique ñëw ak seen piqûre vaccin nag pour tester si ñi xam nga ci ñun la ñuy tester lépp nag léegi nag internet bi whatsapp yi ak audio yi vidéo yi képp ku naagu dof nga ne comprendre ñu ñoo tegal nag kenn ku toog comme ni ñuy def ñoom dañ ñoo taxaw rek chef de quartier wala meeru mbootaay dem woo village bi yëpp wala koñ ba ne la ñëw leen ku xonk ki ñun ndax ku xonk rek ngeen bañ a gis toog na ñëw leen ngeen jàpp seen doom yi rangale leen nag te bu leen ne na seen doom yi ñu dem école wala ñu dem naan bu ñëwee rek ngeen jàpp seen doom yi pare yéen seen bopp ngeen rangale di jël di leen injët loolu ku ko def ku ñu ci njëkk jàpp xale boo leen jàppee kuy ñëpp delloo leen seen kër ndax bu ñu kenn sonal léegi fu mu ne a yeew yeetaat bi yeetaate bi dafa yomb bay bëgg a dee da ngay audio da maire yi dañ dégg te toog tey pas yi surtout ñemee gis ko xonk léegi affaire bi affaire ko xonk affaire de defante la politique la wàññante ay puissance ay doole la mooy doow léegi loolu gars yi dañuy utiliser ay var di ko spray ci nit ñi mais ñun ñu ngi sant atémit bu baax a baax a baax ñun dañu porté suñu bopp soo dégg ngeen lii laa bëgg na lancé damay dem sangu dem liggéey dama uti xaalis mais pour xamale wax leen seen parents yi ku ñu gis mu yor piki rek ñu door ko mu jóge fa amul masla parce que ku ñëpp la nga ne ko jóge fi soxlaw ma la def bu leen indi xale yi rang ku indi nag xale yi nag rangal leen kooku ku indi xale yi rangal leen kooku ngeen jàpp parkat leen ko su mi leen tubee dóor ko ba taati mokk ngeen ne ko bu ko defati bu demee toog bu fàtte bu méttee rek day ne li ma defoon a tax comme ça mu am mandarga bu xam ne dina ko topp ok I love you guys